mbokk yi boroom naaru góor yegsi na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye boroom naaru góor grand marabout di borom baatin boroom xam-xam ak boroom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu deme ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor Seydina Ousmane Ndiaye mi ngi leen di yëgal ni naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire ar Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Merina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19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 Mandela waaye teewul chaque deux mois dina dem rek émerger maanaam yoon mu ngi koy suivre ba léegi rek lool mu ngi ñeeloon coowal topp kaa gi nga xamante ni daanaka lëmbe woon na réseaux sociaux yi ba nga xamante ni sax moom journaliste bi di Thioro Mandela ca lañ ko tegoon loxo bu ñu jógee ci loolu ñu wax ca diwaanu Ngor ak affrontement bu metti ba nga xamante ne moom moo fa amoon gannaaw ña fa dëkk rek daal di lànk ne terrain boobu nga xamante ne dañ ko bëggoon def rek camp bu gendarmerie ñoom nag ñu bañ ne du ca dal jàmmaarloo bu métti ñoom ak takk der yi ba sax ay gaañu gaañu ñu nemmeeku fa ak ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan mu mel ni ca guddi ga nag ki di njiitu réew mi na ña nga xamante ne ñoom ñooy mag ya nekk ca diwaanu Ngor ak waxtaan wu yaatu woo xamante ne seq nañ ko ba ñu dem sax bay pàccoo rek bii le terrain benn wàll ñu bàyyi leen ko beneen wàll tamit ñu def fa la nga xamante ne loolu lañ ca namm rek nag mu mel ni coow la mu ngay gën a wéy rek gannaaw ba nga xamante ne ñoom askan wa ñu nga mer ba futtu loolu nit yi démb ci guddi nag ñu ngay gis tamit kër ngir Cheikh Yérim Seck mu mel ni dañ ko daal a taal rek kenn xamul a ñoo daal di def rek li ni mel am intention rek daal di taal bii de kër image moom ngeen di gis noonu rek ñu ngay fay nag lakk ba mu nekk loo xamante ni c'est déplorable rek ca ñoom ñaara ànd ba daal dinay taq suuf lool gannaaw ba nga xamante sax révélation yu yees nga xamante ne kii di Barthélémy Diaz daal dina koy def bokk na rek ci di wax sax naan kii di Ousmane Sonko ab manipulateur la rek loolu daal di nekk ay kàddu yoo xamante ni daal di nay bett ñu bëri rek gannaaw ba nga xamante ne ñoom ñaar nga meloon ni mburoog soow waaye nag mu mel ni ni ki fan yi nag seen diggante daal di nay naqari lool gannaaw ba nga xamante ni sax moom Barthélémy Diaz wuyu ji woon na rek la nga xamante ne moom di ba njiitu réew mi woote woon waaye nag gis nañ ne bile wuyu nag bokk na sax ci la nga xamante ne daanaka moom moo daal a jur coow rek ca yeewi askan wi waral a jamono ji ji muy euh, Ousmane Sonko ak kii di ñoom ñaar seen diggante tàng na lool euh, bu ñu jógee ci ñaar ñooñu ñu daal di wax ci Mia Guissé euh, moom nag gannaaw ex jëkkëram ak mariage ba nga xamante ne ñu nga ko ca doon tudd moom nag mu mel ni dara safu ko ca mu ngay nekk rek di dund dundam gannaaw ba nga xamante ne nag defoon na ab tournée duppee ko Mia éclosion tour daal di nay del si rek di wax rek ci la nga xamante ne moom moo ko yëkkati woon muy ay tournée ak sax nañ ko cay critiquer lool waral nag ba moom mu dellusiwaat ci li ni mel waaye tamit wax ci yenn ci ay actualité na ba tey gannaaw live ba nga xamante ne kii ak ka nga xamante ne moom moo di soxna bu euh, No Face moom a daal nay def ay révélation doy waar ci jëkkëram moom mel nag bile mariage takku suuf la daal di demee rek gannaaw ba nga xamante ne moom mu ngay wax rek na nga xamante la xamante ak no fees ak sax ba mu teewee rek ca États-Unis seen nekkin na foofu ak na nga xamante ni moom no fees daal na ko koy mu nekk loo xamante ni métti na ko lool ca live Adamo la lépp xewee moom nag muy expliquer rek li ni mel waaye nag daal di mer ba futt lool ca ka nga xamante ne moom moo di no fees ak na nga la ko traité mariage ba nag mu mel ni siiwul woon na dara waaye nag jamono ji daal a siiw ni nga xamante ne moom moo di ca réseaux sociaux yi gannaaw ba nga xamante ne takk ba sax kenn yëgu ko woon waaye jamono ji nag tas ba ba mu mel ni ñëpp daal nañ koy yëkk ak révélation yi nga xamante ne moom moo ca daal di tukkee ci boobu live ba tey mu mel ni a daal dinay dalal rek ka di Nofees da ko laaj rek ca ba nga xamante ni sax daal dinay rek garder le silence def ka wuteeg lool ka nga xamante ne moom moo di soxnaam ak nam ko wili pande rek ci bile live bu ñu ci loolu ñu wax ci Wally Balago Seck defatina mëninam daal di tere rek ab fansam yëkkati ab moto T-Max boo xamante ni bañ ko estimé toll na ci sept millions de francs CFA mu daal di koy jox rek fan sam kooku daal di cay kontaan di ñaanal rek ak nga xamante ne moom moo di faramaren bi ak yëg-yëg nga xamante ne daal na koy am ci ay fan sama beneenub artiste bokk ca famille Seck muy Keba Seck daal di nay rek addu ci Mame Ndiaye Savon ak sax teewaayam ci concert Pikine bu Wally Balago Seck moom Keba nag daal di rafetlu bu baax a baax la nga xamante ne Mame Ndiaye daal di na koy def rek bile teewaay daal dina koy neex lool ca la nga xamante ne moom moo di Bercy bu Pikine nga xamante ni sax doomam Wally Ballago Seck moom moo fa doon rek tëgg moom Keba nag rafetlu bu baax a baax li ni ku ne xam na ne nag wéy na wéy wu rëy ka nga xamante ne moom moo di Mame Ndiaye Savon moom tamit mu daal di fidèle lool ci artistam am bi di Keba Seck ñu wax ci animatrice di Bijou Ngoné ci 2STV moom nag anniversaire bu doomam ba mu nga koy rek teral bu baax a baax dal di koy gàtte rek moom Bijou Ngoné à l'occasion de l'anniversaire de son fils mu daal di koy teral bégal ko bu baax a baax ca Adja Diallo la ñuy wax moom nag daal nay def ab vidéo séduire bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di followers mi waaye nag bii la vidéo ak commentaire yi nga xamante ne daal na koy jur ak na Adja étalé sa beauté rek ci réseaux sociaux yi waral nag ku nekk da ca amal ay commentaire ñu daal di wax ci Mame Ngor Diazaka mu mel ni nag daal nañ koy condamné lu toll ci mois de prison avec sursis loolu nag usine boo xamante ni sax ñu ngi ko bëggoon a implanté rek euh, daal di koy duppee euh, usine euh, wala sax société Biza gannaaw nag mu amoon yenn jàppante yoo xamante ni sax am na ko ak kii di vigile bi di Amadou a waral nag yoon daal dinay def rek bile àtte daal di jëmale rek ci la nga xamante ne moom moo di injure publique ci loolu nag moom ñu daal di koy daan ñaari weeri kaso moom Mame Gor Diazaka bu ñu jógee ci Mame Gor ñu daal di wax ci trafic de a Diouf mu mel ni nag gannaaw bañ ko toppee moom a yeneen it gars yi ci li nga xamante ne moom moo di trafic de visa moom nag xelam mën naa dal ndax kat juge ba dal dina koy acquitté mu mel ni toppeetuñ ko dara waaye nag ñaar ñi nga xamante ne ñoom la seqaloon mbir mi nag daal nañ leen. condamné comédien bii di Alioune Mbaye mu ngay gën a dëggal ay kàddoom rek jëm Sonko ma nga xamante ni sax moom jàpp na ne du mës a nekk président fii ci Sénégal ci fàttali nag moom Alioune Mbaye mu nga ànd rek njiitu réew mi di Macky Sall mu ngay persister rek ay kàddoom di wax sax naan kii di Ousmane Sonko du mës a doon président fii ci réew mi diwaanu Touba la ñu jëm rawatina foofa ca Ngol mu mel ni nag maître coranique ba nga xamante ne dañ ko accusé woon rek ne dafa daal di violé lu toll ci ñaar fukki ci ay dafa daw kenn tegu ko gët ñi di parents d'élèves déposé woon nañu ab plainte waaye nag ba léegi gisaguñu dara amagul benn avancement ci bile dossier waral nag ba ñoom ñu daal di génnaat rek di wax seen ñu guñu gu xol a la nga xamante ni nag daanaka def nañ ko ci seeni ay doom tàggat yaram la ñuy jeexale wax ci doomu Sénégal bi di Loum Ndiaye gannaaw ñu abale woon ko rek ca FC Porto mu mel ni nag moom Loum a dina jóge rek fa nga xamante ne moom moo di Reading ci loolu nag gannaaw carrière boo xamante foofa ca diwaanu Reading moom nag a nay rek jóge foofu définitivement Habib Diallo daal nay addu ci performance yi nga xamante ne daal na koy am foofa ca Strasbourg rawatina dugal but ya nga xamante na ne rek lañ koy doyee te mu nga koy def rek foofa ca rek performance a ci bile gestion ba nga xamante ne daal dina koy def rek mu nekk ay milliards ak i millions yoo xamante ni sax daanaka ëlëm na bopp sénégalais yi ci rek na nga xamante ni sax moom la ko daal di yore rek bokk ci participation gaynde yi a ca coupe du monde Qatar waaye tamit match amicaux yi nga xamante ne daal nañ koy amal nag la nga xamante ne daal nañ ko cay dépense rek mu toll ci ñaari milliards ci sunub koppar ci loolu nag moom daal nay addu nag ci la nga xamante ne moom moo di véhicule de fonction ba nga xamante ne daanaka bañ ko estimer rek mu nga toll ci deux cent millions moom nag leeral na li mu nga wax sax na naan 200 millions yooyu euh, du oto bi rek moom moo ko daal di jar waaye 200 millions yooyu bokk na rek ca la nga xamante ni daal nañ koy totaliser rek mu nga xamante ni moom lañ ko daal di jébbal rek gannaaw véhicule de fonction boobu nga xamante ni moom la daal di yoroon wàllub làmb ak mbër ya wuy ji woon rek mi di Macky mu mel ni nag ñoom gannaaw waxtaan wu yaatu wa nga xamante ne seq ko ak ka nga xamante moom moo di njiitu réew mi bokk na rek ci benn million goo xamante koy jox rek lutteurs yi nga xamante ne ñu ngi leen di wooye